na pagai karo kadeva diyongoyoga na kade aru gaya na pagai karo ngeen ko gisee rek Jackson ci biir këram lañ ko fekk mu génn ñu ziarante toog nii ci mbedd mi xam nga parce que ku nekk daal sa koñ fa nga dëkk fa nga yaroo ay supporters yaa ngi nii wër ko mboqam yi ah xale yi maa ngi leen di ziar fii mooy bañ koñ sax fii nu tudd fii mooy sanc bi ah si Géejawaay kon arrêt Dubalès kon nuyu naa waa arrêt Dubalès yëpp waa sanc bi di ziar képp ku dëkk Géejawaay mais Jackson maa ngi bëggee. maa lay ziar bu baax a baax. maa am nga jàmm. naa jàmm baax. Jackson la grand champion sax wala futur grand champion bokk la ñuy wax euh, mais balaa may ñëw ci Jackson ak làmb jeeg jàppal bàyyi lak loolu euh, kan mooy Jackson laa bëgg nga tënkal ko ñi lay suivre ci Leewtoo TV. waaw baaxoon ñun dañuy sant yàlla bu baax di jul seen bi di sant suñu ñaar waay yow di ñaanal fu mu tëdd yàlla gën mu jógee waaw duñu sant Sénégal gépp sant père Awa bu baax a baax mère Awa bu baax ak père Bakar Sey waaw ak mère Noé Wade di ñaanal suma sëriñ sëriñ Moussa Fall yàlla na fi yàgg loolu te wér responsable moral waaw Jackson bi waaw suñ benn grand frère la rek mun tuddee suñ boobu mu nekk buun ah mooy Jackson mbër Jackson Mbër waaw newoon école de Mansour Mbaye voilà waaw na ko yàlla yaram waaw xamoon naa ko ku mën a bëre macha allah da ngeen a bokkoon écrit. non bokkuñu woon mais sama mag la. ñoo bokkoon waala waala waala waala sama mag la sama lépp la ñoo bokk dëkk. Hmm. moom moo la jox turu Jackson. waaw su ma laa ko jëlee ma sama bopp quoi. Ah, waaw da nga ko gisoon fànn ñu nekk mbokk mbokk dëkk en même temps da nga a dëkk wala. bun non mosuma fa dëkk mais daanaka waaw daf daf naa léegi ku mel ne géej laa fay def rek dafay ñëw fii dem fi semaine dem bun am fa semaine mhm. waaw mënoon fii laa dëkk mënoon bun laa dëkk maanaam mbokk yi dañoo nekk entre Boune ak Guédiawaye. waaw dañoo nekk Boune ak Guédiawaye waaw. Mhm. mais Jackson origine am defe naa waalo waalo la wala. waaw waalo waalo 100 pour cent kay. foo dëkk si waalo. ñig ñig. waaw ci la dëgër bi rek. Ah, ci la dëgër bi. waaw ñoo leen jox ndox bu leen jox ndox doo leen naan. <laughs> yéenay tax yi naan ah. ñoo tax Dakar naan waaw. Ah. <laughs> naan. ah ñun moom suñu dëkk bu ngeen bu bu la dëgër ñun man moom fa ma dëkk moom ñun dañuy gas ñun ñun moom am nañ suñu forage su bopp ñun moom. waaw ah, ñi moom bu joxul moom Macky Sall sax du naan doxul waaw fa la mag bi nekkee. bu doxal moom Macky Sall sax du naan. président bi ah. waaw président waaw. Ah. ñu koy nuyu di ko ziar le président de la république monsieur Macky Sall. Mm-hmm, waaw gis na maa ngi maa ngi nuyu di ko ziar bu baax a baax di ko ñaanal jàmm. yàlla na yàlla jàmm yam jàmm yàgg. Mm-hmm. jaajëf mbër léegi nag dañuy ñëw tout droit làmb bi Jackson lu ko dugal si làmb. waaw làmb ñun amaana euh, kiw yàlla ndimul yàlla rek moo ñu dugal si làmb parce que ñun amuñu mag buy bëre amuñu pap buy bëre amuñu maam buy bari maanaam natu yàlla laal yàlla natoo làmb ñu bëgg ko nekk tout temps di nga fooy agsi fi mhm. agsi da nga am idole bi nga ciy dugg bi ñu ciy dugg daanaka amuñu si idole noonu parce que xam nga jamono yooyu jamono football la woon ñu bëgg di ko fondoo di ko fondé ba gis suñu mag Jackson waaw topp tamit waaw di bàyyi di ko bàyyi xel ba bëgg ko tamit waaw comme su ma la nee idole tey maanaam exemple mbër yu mag yi maanaam nga nekk xale di seetaan télé di seetaan ay mbër yu mag maanaam mbër yu mag yi daan seetaan kan moo la ci gënoon a marqué koo xam ne ngay ma trop ak. Omar Sakho waaw trop naa ko seetaan tamit mu neex ma trop mais tamit am na loo xam ne loolu man wax naa ko ci sama ay reportage mais am na ñu koy wax. ñuy commenté sa vidéo Leewtoo yi di ko faral di wax ne que booy bi dafa am trace ak Modou Lo wala nangam sangam yaa ngi dégg wax boobu. <laughs> waaw maa ngi koy dégg kay maa ngi koy dégg bu baax a baax mhm. waaw Modou Lo moom champion la wax waaw champion bu nekk bi bëre bëgg na niroog Modou Lo wala niroog Balla Gaye rek mhm. wax ndaanoon la champion la yàgg naa ko depuis mbooba nag mais bokkuñu dara waaw amaana yàlla mooy mooy mooy mooy niroog nit ay nit quoi mhm. mais champion la nag. mais nga nekk xale di nekk si làmb ne ci buntu làmb ñu lay niroo leeg champion bu toll ni Modou Lo le roi des loolu tam lu muy def ci sa xol loolu sant yàlla rek waaw parce que niroo Modou Lo taxaw nga mën bëre niroo Modou nga am jom bi si nit ki lay doon quoi du question de niroo waale du question de tool waaye xam nga yow mi nit ki yaay am jom am fula xam lu la war waaw mais peut-être ku nekk ñaan la yàlla ñu lay lay comparé ku baax quoi comme lu ñuy yëngu champion la star la yàlla dem ba mel ne moom wala ñu sut ko sax ba raw ko si làmb hmm. parce que Jackson dañoo gis Jackson dafa calme bëriwul wax li muy génn bëriwul nangam sangam lu tax ngay toog benn place rek parce que gars boo amul combat duñ la gis. waaw loolu moom ma demee sax mën naa dem làmb ba ñëw ma wàcc plateau du ma wàcc journaliste parce que dama xam lu jot yomb. bis na yoo xam nekkul li ngay forcer pour nit ñi jot ñoom ñoo lay woo pour ne la kaay jël interview waa boo liggéeyee rek lu ne di nga am si àdduna quoi moo tax jarul yàkkam di jarul naan kaay jël ma jarul naan nangam na nekk si yoon bi di liggéey rek boo liggéeyee bu la war a jël dina la war a jël a boo war a génn journal di nga war a génn journal waaw wax nga lu am solo nga wax maanaam mbir moom xëcc bu daggul la bu ya teengee rek dana yegg si maanaam lu jot rek yomb xëy na xam kon ba tax boo ñëwee stade doo fa nekk di dëkkanteeg di sa ruq ngay toog xool li ngay xool après bu jeexee nga ñibbi. dëgg bu jeexee jeex na parce que tamit ñun ay tutànk nañ ay xalaat nañ te yàgguñ sax si laamu suñ amaana suñu yoon la yàlla dimbali sax mu mel nii daan bëri trois fois si saison bi affaire yooyu mais nan jaam bis dina jot ñu doon roi des arènes wala bis dina jot ñu doon star ci làmb mais ñoo ngi ci tànk yi ñoo ñaan yàlla dimbali ñu ba bis jot ñu doon roi des ñu doon star man damay chaque jour rek tànk daw ba boo koñ booroom ni xam nga josoma la xam naa ko man kon defaguma dara ci làmb te tollooguma foofu na amaana bu ma xamee sama waa koñ kese ma xam ñu ma xam bëréewul kon làmb defaguma ci dara maa ñaan yàlla nag ñu dem ba waaw da mel ni gars yi xam ki kon kon ni Balla dana ki may Balla mais boo génnee fii boo ne Jackson du xam kon nag ñoo ngi ci tànk yi yàlla mën nañu ko defal ñaan yàlla yàlla ko defal moom mu am lépp lépp yomb ko yàlla na ko yombalal am na solo léegi su ma ñëwee ci carrière bi ñaata combat nga def ak ban nga dugg ci làmb man euh, am naa douze combats am dix victoires deux défaites mais moo juumalee daal xam naa ay 2014 2015 yooyu laa dugg ci làmb waaw. ki nga njëkk a bëre. mu njëkk a bëreel est-ce waaw. fàtte mais fàtte nga ko ba kan moo bëri woon tête d'affiche ba grand combat bi. fàtte naa wala mu kii la woon daal man ma ko tudd sax combat xam Paala moo ko doxoon Paala Meng. Paala moo ko tëgg. waaw. Hmm. ñu koy nuyu di ko ziar Paala. léegi nag douze combats nga wax du. onze victoire. dix victoire deux défaites ñan ñoo la daan. Kangam moo daan ak étudiant. Kangam ak étudiant. Hmm. étudiant bu tëngee. étudiant bu tëngee waaw. ok. teg ñaar defet nga teglante. waaw ñëw bëri six combats am six victoire ñëwaat teg la ñaar defet mu nekk lu metti xam na bëri ñu daan la ñaari yoon. waaw xam rek. xam naa gars yi ne la bàyyi. non boo bëri muy neex xam nga boo tàmmee victoire xamoo defet nga xëy rek am six victoire teg la ko mu nekk yoo xam ne day gaaw mu neex mbooloo mi ñëw nga xëyaat am deux defet lu ne di nga ko dégg ñu yàq dinañ yàq ñu lay conseillé leen conseillé boo découragé tuuti rek doo dem quoi. mais dangay am gëngoom yàlla xam sa bopp ñu la ñu la ñu la xam ne lii ndawal yàlla la mais teewul ñu bàyyi mu métti trop ñu takkaat dalee nekkaat sa ndox ba yàlla dimbal ñu waar ñu defaat dara ci làmb léegi damay ñëw nag euh, ci say combat yu mujj daaw sa combat ak bul laal sa combat ak sangalee tigre combat yu nekkoon yoo xam ne ñu bëri bi ngeen bi ñëw si combat bi dañ jàppoon ne doo favori mais ni ngi leen di daane day jaaxal nit ñi sang moomu ak bul laal ma ci mën a waxaat. waaw gars yi noo jàpp yooyu noonu rek man ba may bëre tigre tigre moo ëpp fuuf tigre moo ëpp am doy tigre junior xam nga ko dañu daf may rey amuñu sax 30 secondes man ak moom. tigre man bu lam waaw amuñu sax 30 secondes ma fiir ko jaalo xam nga ak ñeneen ak ñeneen ay corate man dama ne tout temps ñoom ñëpp ñu ma bëreel ñëpp mag yàgg naa bëre kenn du ma def favori maa ñaan yàlla chaque jour may bëre sama adversaire nan ma def favori parce que lu ma lay wax chaque xool ma paa xool ma mbër mu yambar parce que loolu moom moo lay avancé loo si kanam quoi ragaluñ dara parce que ñun ku ñu àndal moo tax ragaluñ dara yàlla nañ yaakaar moo fi nekk kon tàppatuñ dara nay saf rek. Mhm. bi nga jógee bërki dem mu mel ni bu saf sàpp la combat sa combat ak Pape Ndoye kañ la taxawoon. combat waaw dama jógee combat ñun ak sang euh, dimanche léegi mardi laxar woo am ba wooyee moo ko am déggoo après ñu jëlaat avance boobu noonu. waaw ba ba ba laxaat bu wax am sax ñoom ñaar am laxaat mi nga yaakaar am ndax ko bi diisul affaire yi noonu xam nga man ñu may àndal ñoom ay gay laat sa manager laat Ndiaye bi diisul ci am ko am na am ni ko wax na ñëw affaire yooyu xam man ñu may àndal ñoom ay génn ay am ay baaba man même bu ma ragalee sax ñoom duñ ragal duñ tapet <laughs> ñoom ñoo may fital di ma dooleel ñu déggoo ñu déggoo waaw ñu jël ko dem signé ko grand yow bi nga ko jëlee Pape Ndoye amut ñu naan la Pape Ndoye la man nga koy dégg ci sa wala ngay dox ba dégg ñu naan kii day xar waroon a jël Pape Ndoye daawoo dégg lool. xam nga WhatsApp bi daa garaaw. gars yi dañuy envoyé vocal gars yi leen transféré. yaa ngi dégg mais vocal bu vocal dëmm jot naa ko. Hmm. Pape Ndoye moo la man Pape Ndoye boo xeexee moom wàcc. xam nga ne mais dara ñun dara ragal ne ko si ñun ñun ñun géew ñun xëy ñu rek bëre amuñu magu mbëram dara dañ ko dund. ñu takk daal di takk dëbës xam lu ñu war xam ko baax fu ñuy yóbbu tamit ñu laax suñuy ruxu kenn gisuñu entraîné suñuy entraînement lu ñu indi ko te gëm na lu entraîné ko Pape Ndoye sax bu nga ko tegee dina wari. Mm-hmm. ah loolu de daa mel ni ci si bi ñëwee si combat yi kere bi ngeen defee signature gël tapé ñu gis Jax calme dal ñu ñëw sa open press tamit nga wanewaat lu mel noonu dal boobu nga daloon mel ni koo xam ne nii maanaam yow da nga xaw a mayen Pape ragal la woon wala dafa am da nga doon da ngaa gisoon lu mu gisul. waaw fit moom kenn duñu man maa am fit wala xeex ko ni moom maa am xeex. fit fit du si kanam du si du si ginnaaw affaire da nga am taalibe chaque jour rek parce que ñun ay taalibe nañ ay tutang nañ dañuy waxal ñuy dégg bien vrai que ay mag yu bëri nañu suñu ginnaaw mais ay xale am jom am dégg-dégg ñoo nekk suñu ginnaaw chaque jour bu ñu dem dañuy conseil bu ñu waxee sax ñëwaat génn danaan waxee nga fii juumee nga fii juumee nga fii bu beneen yoon bu ñu waxee noonu noonu waa mais bu ñu demee si biir géew bi nag loolu noonu biir géew bi la quoi waaw noonu la demee loolu moom dina wane ful ak faayda quoi suñu morom góor duñu yëf foofu noonu. Hmm. ngeen ñëw stade Iba Mar bi nga duggee ci stade bi Pape dugg si nga gis Pape Ndoye gis sa bopp yow kii da jàpp ne yaa doole wala. waaw jàpp. Hmm. jàpp naa maa ko. ak mu toll. waaw jàpp parce que damay wax sa jour rek du affaire du rëy hmm. la du ponkal du njool du dara mais na nga xam li nga liggéey parce que nit boo liggéey liggéey kenn du nax sa bopp. boo liggéeyee boo demee di nga xam ne liggéey nga wala liggéeyoo. yow maasam bu ñu ko gisee gis sa maas yow xalaatu mu ëpp la da nga xalaat ne yaa ko maanaam daal da gis ne moom maas mu yor du no non mën na bañ ñàkk doole sax mais xam naa ne man ëpp ma doole man. ëpp la doole waaw mais xam naa ne ma doole parce que man mooy loolu la man damay gis nii man ndaw nii nga jàpp ne mais bu ñu nee kirtim jàppante bi nga xam ne mooy loolu fi nekk nga xam ne gay na nga jàppanteel Badou waaw bu ñu demee ba arbitre pare nga foofu moom doy gis ma waaw chaque ah. bi nga pare gis yow gisoo keroog bi nga gisee gis Pape Ndoye waa Fass ëmb ko ay magam dafa gis sax ñoom ñëpp ñu ñëw xam nga yow loolu amut loge yi lu mu def si yow kere si bisu combat boobu. Lamine wax na ma ko man nga jàmbaar ma waaw sama interview mag ah. ba jour waa na Moussa Gueye ñëw na Mbaye Gueye ñëw na Maodo ñëw na Lagros ñëw ñoom ñëpp ñu conseillé ko bu ñëwee ma daan ko wax naa ko si rek jàpp ni affaire du affaire de ay mag dara affaire la affaire de gëm-gëm parce que Balla Gaye ba mu nekk dara du dara mu ñëw indi ko fii ak la guerre ak yeneen noonu Moussa Gueye ba mu ko def ni Mbaye Gueye la fekk écurie bu nekk ñu tout temps nañ nekk suñu écurie mais ñaanal yàlla dem ba midi mooy loolu parce que écurie bu nekk rek am na ku koy ku koy élevé mhm. am na ku koy tax mu jóg daal koy tax ñaanal yàlla man ak samay morom ñu yëkkati écurie boobu noonu quoi parce que gëm-gëm la rek dara du écurie bu mag du dara mhm. ngeen dugg si géew bi defaru def seen i ba pare nga taxaw mu taxaw arbitre taxaw boobu loo loo ngeen jàkkaaroo boobu loo yëg <laughs> ah foofu yow <laughs> foofu garaaw na de jax waaw garaaw mais foofu man dama jàpp confiance dama ah. ah, xool ah, dama xool nu mu mel ma xool nu ma jàpp ne bërëb bi nii man xam naa ne fu lu muy métti métti man du kii mën moo yëngal waaw ndax bu ma xoolee xosam boobu yéen ñiy reporté ba doon xoolee ñaari adversaire taxaw yi da ngeen xam ne lii nii mooy loolu noonu lu gars yi daan wax ak yi bokkuñu ah. waaw parce que dañu déggoon ci signature contrat yi ngeen di waxante kani dinaa moom mu ne dina maanaam da lay dàq jàpp la daan la yow nga ne ko lool su ko roogee boo ko defee réccu ko arbitre soufflé mu jëm ci sa kaw ma jékki-jékki nga gis rek dugal ko benn euh, xeex ak moom non dafa am conseil da nga ko conseillé mais Pam de nu mu bëree man la droite noonu ma xam ne kii nag bu ma moom du sotti quoi parce que a diis suuf tamit te diis na naa ko song mu ma xam nga mën naa ko jël mu pëtaxal ma te moom jàmbaar la te dafa mën a épurgé. waaw non jàmbaar la nag. non ndaanaan la jàmbaar nga daan de mbaa xam nga ne ndaanaan nga daan. xam naa ne jàmbaar la. borom fit ku mën a bëri. te du ragal man lu ma dund moom du taxul bu doon ragal c'est que tolluwaay day am ak bis boo moom bis boobu nekkul bisam mais jàmbaar la gaynde la billaahi waaw amul mbër bu ko ba fit si laamu ji ma ne kii il faut nga il faut ñu pour pour ñu bëree il faut ñu ñamante parce que seen moom ba ba saf saab waaw si dina laala laala ba saf am na yàlla def lu mu nga dóor ko parce que njëkk nga dóor mu génn ci biti boobu ay coup moo ko génne wala lu ko génne. ko génne ay coup man man ma koy dóoree maa ngi koy xool boobu maa ut si mâchoire man moo ko am. ba pare en plus dama éliminé loxo bi quoi. léegi dóor ko arrêté wala dóor affaire mu kaaw moom it daw daa kaaw. waaw nante la quoi bu taxaw na gën a ñaaw mais daa kaaw kii ma. kon xanaa moo tax bi mu dellu si affaire bi mel ni lu gën a yombaat si yow. pourtant moom dee soo gënu si mu sax am na lu ma yàlla dimbali si bëre te damay ñëw pour xeex si te laa la fii nii ak bonne presse bi. ñëw pour xeex dama bëggoon war a confirmer dama bëggoon affaire du ay karam du ay karam gu leer du affaire da yaroo biir géew moom affaire da jàmbaar la quoi du yàggul benn temps la rek dañ si teg xara badar lu si yàlla may la ñu jël ñun loolu chaque jour may wax samay booy rek man du ma ni damay daan wala du ma daanoo mais entraînement kenn du ma si xas ful ak faar kenn du ma ko xas si biir géew mais daan ak daan loolu ni mu mbiru yàlla la loolu du sama problème mais ful ak naa dinaa ko wane baax entraînement tamit dinaa ko wane mais dinaa daan du ma daan loolu loolu problème yàlla la quoi yëpp yàlla waaw. am na solo loolu moom lu am la nga nga nga dóor ko mu daanu yow bi nga ko dóoree ba mu wàcc noonu foofu corosé yi fu mu dal si mâchoire nga ko dóor wala fan nga dóor. si mâchoire laa ko dóor ma kor ko uppercut ko waat ko uppercut ko mais dafa dëgër moo dama xaw a yéex mais mâchoire bi ma ko wàcce ma ma sax ma nga dóoraat beneen coup si mâchoire mu wàcc mais moom dafa noonu ay mbër ba taay <laughs> loolu nga ko defee lii tamit da ngay sant yàlla da xam ne. ndax jaar na fa ak mbër mu mel ni bébé bis mi. jaar na mbër mu mel ni benn boy benn boy kii Kër Mbaye ko bu Kër Mbaye waaw xam nga kon day jaar man man man keroog yàlla ma faral rek. mais du sama man man man tamit. non faral limul yàlla rek. léegi nga daan ko nag mu mel ni nag waa làmb nag kera ah dañoo gisaat nag lu wees wala beneen xale coow li jàpp coow loolu noonu après combat bi nu nu muy def Jackson non yow xam naa ne yow loolu yow nekkul surprise yow mais am na ñu bëri ñoo xam ne surprise si ñoom <laughs> mais man xam naa ne yow loolu du surprise yow mais bëri ñoo xam ne ñu ah, ah, itam ñun dañ leen di seetaan xam nañ li ngeen capable li ngeen mën moom jàmbaar la mais xëy na na mu la bëgg na aborder la ñu jàpp ne est-ce que bu ko ni defee mën def naa loolu moo am si combat bi ñoom tout le temps lan moo leen rey ñoom dañu nit kenn du xeeb sa nit parce que nit ku dem ba jël avance am xam amul lu muy tàppati si yow. am na fu mu ko teg daal. am na fu mu ko teg am na fu mu ko yaakaar ba jël sa avance te ñun bu namee bëre wala di ragal wala def dara dañuy bàyyi làmb nee naa même bu ñu ragalee ñun ñu ngi ànd duñ tàppee dañuy dooleel xam nga te ragal du si ay wax ju ñaaw xam du si ay neefi di def ay yenn business yi du yooyu yëpp détail la rek waaw si biir géew bi la amee ku am lamb nag waaw coow li bëri na trop daan naa paam doy mais chaque jour lu may wax man dafa ko ma dara si lamb dafa ko ma dara si dara si man uh-huh. yëwuma fen fàtte naa ko damay xeer ne fàtte paam doy sax jaaroon na fi damaa ni sama entraînement neexal si leen parce que suyu ma ñu ma xam bëriwul amagu a siiw bëgg a am xaalis man ba léegi lamb mooy lamb mooy lekk si man lekkuma si lamb waaw comme mel na ñoom am dama jaay mi fii ndax lamb ji ñoom baabati seen place yi ñoom laajub gars yi xam gars yi bàyyi seen lépp ndax làmb ji kon ñun làmb moo ñu lekk mais ñun lekkuñu ci làmb kon dem kuñ fenn ci làmb amaguñ ci succès boo génnee fii dem passé boo nee Jackson xamuñu kuy Jackson waa gi waaye xam ak waa buun kon tamit mooy loolu liggéey bi des na lu bëree bëree bëri sax dañuy tàmbale nii rek. léegi daan nga ñu félicité la mais léegi nag fi ñuy jeexale mooy Jackson fan la jëm actuellement yan adversaire moo ne ci xelam ak ñu mu jàpp ne ñoom la war a bëreel. ku ma jox yow Babacar. man ku ma lay jox. Ah. ñi ma la mën a jox ah say morom de bëri nañ ci ah, la ko may jox. démb de am na ku daan laaj la booy bool numéro 2 daan na Zal Bambey dem laaj la. mais xam nga loolu làmb man loolu làmb boole. boolewu leen. non non ah kon léegi tànnal. non instant moom amuñu kuy tànn man. man lu may wax chaque jour rek man du man maa décider combat. combat laxat ak am ñoo koy décider ñoom ñaar bu ñu waxee ba déggoo rek laxat bu nekk am kii laa bu am déggoo man garaaw man nga faa delluwaat. waaw bu ñu déggoo am rek ku mu nekk sa xel boo dellu Lamsaar ci ku non loolu kay <laughs> xam naa bëreetum fa adversaire noonu quoi. waaw. Ah. Ah. Fass bëgg nga faa duggaat. maa ngi fépp ñëpp kay. Fass ak lamsaar ak parcelle ak lépp géewee laa fi bàyyi daal ah. man géewee laa fi bàyyi ak waalo waalo yi mais mais nag man nag bëggoon naa nag nga ne ma diw mi sama diggante ak moom combat la nag yow itam Jackson. c'est que a feemu. Ah, non feemu amu fi maanaam lamb la yéen tey fii amul ay nii naa da ngeen di bëree il faut ngeen tuddante mais bu kenn ku ne ne du ma tudd sama morom. am non am non non non loolu xam nga la am mais bon non mooy dirissé mais yow yaay fëggante korosé yi ba maasuwaar yi metti est-ce que may dégg bu ngeen dul tuddante naka la bëri di amee il faut ngeen di tuddante seen biir. yow laaj nga wax moom mos naa ñëw ni xam nga tudd nga fii Balla Gaye wax si rafet mu loo noonu ak keneen ak keneen ñi la làmb boole actuellement xam nga leen Jackson. man na xam comme ne nga booy bawal dëgg xeeb nga ko. déggoo naa ko disee man xam nga mooy disee. Njaaytin rek ki tafaatin ko. man déggoo dara ñun nay met neex loolu la. ñeme nga ma war a Njaaytin am na amees na lees ragal man ci làmb ji laa nekk ak yow jaate ñëw waaw. ñeme ngaa lekk avance. loolu ñëw nga loolu lekk avance kon ko dox nga jël ko. non ku la mu déggoo am rek moom loolu am moo koy déglu. waaw bu déggoo ndax damaa xalaat ñoom double moteur moom est ce que nga mën ci ñoom lu bari ay double moteur parce que gis naa ko ci pën presse Pape Ndoye de mu jàppale ji ko. ku amee moteur. bu rëbës ah xamoo double moteur yow itam. double Jackson na xamul sa gars yi da xam ne double moteur. ah mooy kii booy bu ñuul boobu noonu. xam nga dëgg ah. dafa dëdd dafa tërkis de. bëri na ñoo ma jàngal ko bëre. double moteur. mu ñëw nga jàngal ko lan. bëre mënul bëre. di réfléchir nag. mënul bëre jàmbaar. waaw. double mënta bëre. mu dugal si yéen gaam yi ni ñu mën a bëre. coowa ngongu. kaw kaw ACM moo ko boole si laamu. lan ko boole ci laamu. ACM. ban ASM xanaa la. waaw moo ko boole si laamu bokku si laamu sax. bokku ci. Mm-hmm. li ngay ni daa mel ni ah du yow gis nga double moteur. double ASM moo ko boole si laamu. te bu ñëwee kon da ko bëgg a wan naka naka la ñuy bëre. ma jàng ko bëre jox ko cours. Hmm. am na boo xam ne da war a hmm. ko a na boo xam ne da ngay war a corriger rek. moom ci la bokk xanaa kon. si la bokk waaw. ci nga war a corriger. waaw. yow mën ngaa corriger double moteur yow. c'est vite fait ça. vite fait bien fait. ndimbali ah. am na tamit benn promoteur. keram moom ma wax bi nga daane moom waxuma sa double moteur mais bras droit am la ma wax. ki topp si ginnaaw muy Zal Bawal. ci kanam caméraman bi xam nga kooku. xaw ma Zal Bawal. man man may gisee nag man laa ma bëri xam bëriwul man dama dem làmb moo tax moo tax lépp am moo koy diriger am moom bu ñëwee ma jasoon may nelaw man diw ak diw man nga joojowul te bëgguma lu nooyee bu ma benn pa laaj benn pa waaw <laughs> taal bi sëñ Moustapha Sy kontaan ci yow taal bi sëñ Moustapha waaye nii responsable moral mooy sama wasila yàlla na ko yàlla bàyyi loolu di wér waaw